misaal yi doon bàyyi ci kaw suuf li mu yonent yi te yonent yàlla Muhammad ba muy génn àdduna loolu la bàyyi ci sahaaba cent vingt quatre mille sahaaba la bàyyi téeméeri junni sahaaba ak ñaar fukki junni ak ñeenti sahaaba la yonent yàlla Muhammad bàyyi waa ji roy yonent bi ci mboolem melo yi ba ba muy génn àdduna moom tamit li yonent bi bàyyi woon ci sahaaba moom la bàyyi ci saalib nee na lépp lu sotteekoo ci xadara yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te la xat zawaatul anbiyaa yi mooy zaati bi yonent yi ñoo koy capté mhm. waaye mu ne wa kullu ma faada wa baraza min zawaatil anbiyaa yi te la xat zaati mhm. ne lépp lu sotteeku ba bëstiku jëlee koo ci ruuxu yonent yi sama ruuxu man bi maa koy capté balaa benn wëli bi ci jéggi ci laa dara sama ruuxu moo koy capté mu ne wa min ni yatafarrau ila jamil awaani man ci man lay tasaaroo nag mboolem waliyu yàlla yi ak ku mën a doon ci mboolem tariixa boo mën a doon mu ne waliyu yàlla yëpp maa leen di dolli ci yàlla ndeysaan ñu ne ko ban jamono mu ne min ladun aadama ileen ndef ci suuf suñ bàyyi aadama bu ko yàlla sàkkee ba bés pencum yàlla bépp wali yi bu naan ci géej bu wilaaya man Cheikh Tidiane yi maa tànk jox la nga naan nga nandal say taalibe mhm. ñu ne ko Cheikh mhm. yonent yi avant ñoo nekk yonent yi nekk ay wali yu jamono jooju ñu nekk ay wali yu kan moo leen di nandal Cheikh Cheikh nee na yonent yi yëpp balaa leen yàlla di yónni suñuy naan ci géej gi wilaaya maay tànk jox leen. allahu akbar leen man nii Cheikh naa ba ci géejub nubuwa maanaam géejub nekk yonent dugg naa fa waaye damaa génn set wecc nekk ma yonent bi nekk wali yu la amri hada cheikh ay wilayatin tafajjarat min bahri gëñ naa ci sama dund. aada cheikhu sëriñ bii nii mooy si Ahmada Tidiane. garab bi daw na. mooy jëmm bu wilaaya boo xam ne dafa jël dafa ba ci génn nit ba xam ne ko ci géej gi yonent saa fi yéen set wecc nekk yonent. ndeysaan yonent Cheikhu Tidiane ba mu duggee ci géej gi naa génn di yonent waaye dafa génn set wecc di wëli ñu ne noonu lan lay mën a nekkee ñu ne jën yi ñuy lekk ñun nii te ñuy jóge ci géej gi wex bi jën yi naanuñu ndoxu géej gi suñu doon naan ndoxu géej gi kon ñun suñu leen jëlee duñ leen mën a lekk ndax day wex waaye yàlla ngi tawal ci biir géej gi taw bu tudd matarum naysaan une semaine la ci at mi soo jàngee hisaabul fëlëk yi da nga ngi tawal jën yi ak yi nekk ci biir géej gi semaine ci biir at mi taw bu tudd matarum naysaan bu réserver leen ndox mi foofa jën yi su bëggee naan ndox mu neex moomu la ñuy naan pour ñun ñu mën leen lekk fekkee wexuñu jën su mënee nekk ci géej gu wex daal di naan ndox mu neex Cheikh Ahmad Tidiane neen noonu laa nekkee woon ci géeju gu yonent may naan ci ndoxu bu wilaaya ma génn nekk wali yu nekk ma yonent allahu akbar fa kullu waliyin kayfa kaana bi bahrihi umidda bi qadri ma lahu min fadilati benn waaye ca Marrakech boo ngi tudd Mouhamad ibn Abdul Wahid an-Nazifi góor yàlla la ma ko dem na ci tariqa Tidiane bii nee na fa kullu waliin moo ko wax mhm. fa kullu waliin bépp waliin ci kaw suuf. Mhm. nga jëlee ko te limaamul Junayd bi am tariqa ci kaw suuf awwalu man assasa tariqatan ala wajhi l ardi baada al quruni nuraniyati salaasa. Mhm. la ko xëccee nga dem ba ci ñoom si Abdul Qadir Jeylaani wali yàlla ñoom Abdul Karim al Qushayri nga dem ba ci ñoom ibn Amr ibn al yi Abu Yazid Bastami ñoom ñépp fa kulli wali mu ne bépp wali kay ak noo a mel ak noo mën a yor ci yàlla mhm. bi bahri bi tariqati ma lahu min fadila ñoom la dollee si ci Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu luy wali di ci yoonam jëm ci yàlla daje na daje ba muy tàmbali sax ngir bañ nelaw guddi dafa taxoon buum xëcc ko dugal ci baatam ngir suy yàlla guddi su ko bakkanam nootee pour nelaw maanaam buum bu xoj ko mu yeewu ngir mën a def lam bëgg a def awraat yam war a gis nga nag dem na ba dajeeg yonent yàlla Muhammad boobu mu ngi am 46 ans muy dajeeg yonent bi sallallahu mooy li mu wëli mu dajeeg yonent yàlla Muhammad yonent bi ne ko sonn nga lool daje ngaa diw daje ngaa diw daje ku nekk am na loo jële ci moom waaye tey maa ngi lay wax ne la nga amoon ci góor yàlla yépp sànni ko ci ginnaaw tey amatoo sëriñ ku dul man yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbaani rabbi hmm. ahsana tarbiyati fa ha ana murabika wa cheikhuka al abar allahu akbar yonent bi yàlla ma yar mu defar samay mbir yow nag yow man maa lay yar defar say mbir Cheikh Ahmad Tidiane moomu nag ne wali waliyu bi nazifi nee na fa kullu waliyu bépp waliyu kay fa kaan ak nu mu mën a mel bi baxar yi ci géej Cheikhu Tijaani ummi da lañ koy dollee bi qadri ma lahu min fadilati ngir lam am ci ngeneel lépp lu mu am ci ngeneel ci Cheikh Ahmad Tijaani la la koy la koy amee Cheikh mii nii yitte gu koy boobu euh, lépp loo xam ne rek wan yi dana ko daj moom dañ ne ko moom Cheikh ah. waaye muñ góorgóorlu ba yegg koo xam ne yonent bi ne ko sama diggante yow ba suñu ci tey amatul wali bu mën a jaar ci diggante lépp lu sotteekoo ci man ci yow lay jaar képp ku bëgg am ci man dara na ci yow yow matal yonent yi yàlla ñu am ay weddikat yu bëri ci jamono parce que li ku naa ba mu nekkee baax la mu ne képp ko am feebar ñëwal yàlla may na ma pour mooy amal mu am képp ku am feebar yegg si fii ma ñaanal la maanaam ñu feebar ni rang ñëw ci Cheikh Tidiane Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu di leen ñaanal ñu ñu ñu ñu ñuy am saafara ci saa si ndekete am na benn wéddikat borom xam-xam la moom di Cheikh Tidiane ni Cheikh Tidiane fekk farluku ci malaat yi ak nañuy wéree ci saa si ndax wali bi dana yegg foo xam ne su waxee amal rek mu am ndax day toog ci palaas suuf yàlla maanaam yàlla daf koy jël dëj ko ci palaasam mu nekk xalifatullahi fi ardi ndekete waajooju yi boobu moo ngi weddi cheikh mu gis cheikh yi mu defee nag mbir yi mu jaaxal ko lool mu ne xaaral ma ñëw galgal cheikh ba mu ñëwee ne ko yaa cheikh raaytuka tu'aalidu euh, al marda wa hal indaka shay'un min tibbi zunub sëriñ bi gis naa ku feebar su ñëwee nga faj ko man nag sama feebar mooy sama bàkkaar yi bëri est-ce que am nga luy comprimé yoo xam ne danañ faj bàkkaar xam nga mooy firi ne dafa bëgg a weddi cheikh waaye ndekete xamul lam laaj cheikh loolu gën a yëkkati waaw nekkul sax faj ku feebar nii ci zahir waaye ku sa xol feebar ca yàlla cheikh looloo ko yëkkati cheikh ne ko naam indi tubbu zunub bi man yor naa lay saafara bakkaar waa ji ne ko àllim ni yarhamkallah xamal ma ko cheikh daal di ko def taraf kii yóbbu ko ca péyib yàlla ga ne ko isham ila shajaratil yaqini وخذ منها عروق النية وأوراق التدبير وثمار التواضع واسحقها في مهراس التوبة واجعلها في قدر الرجاء ومناسب الصبر وأوقد تحتها نار الخوف بحطب الزهد تنعقد لك شربة فاشربها من حيث لا يراك إلا الله فإن الذنوب لا تأتيك أبدا الله أكبر شيخنا اذهب أنا أم فيبر بكا نكو أبنك اذهب demal ila shajaratil yaqin fexeel nga yegg ci garab boobu tudd garabu bu yaqin mooy certitude mooy am dëggu ci yàlla al yaqin fexeel ba am garab googa izhab ila shajaratil yaqin wa xuz minha uruqan yaqin nga jël ci reenu bi yéene yu sell ndax yàlla balaa ngaa dem ci moom nga am yaqin ne yàllaa ngi fi beneen bi il faut nga am yéene bu sell mu ne demal ca garabu bu yaqin nga fexe am fa eh, maanaam reenu yéene uruqan niyati wa awraqa tadbir ak xobuk settantal wa simaar tawaadu ak meññetu ku wàcce sa bopp maanaam yàlla mënoo faa dem fekk yaa ngi yëkkati sa bopp fekk yaa ngi rëy rëylu mhm. fexeel am meññetu wàcce sa bopp simaar tawaadu gis nga soo jëlee maanaam reen yéene yi ak xobu sertanten meññetu wàcce sa bopp da dajale ko was xataa fi mihraasi tawbati dugal ko nag ci gën gënn tuub waa nga dëbb ko foofu su mokkee waj alxaaq fii xis bi wajaan nga dugal ci ci njorto yaakaar yàlla waaw ki taxtaxaa naaral xaw si bi ma xat bi suuf bi na nga taal ci ron cin wi naaral xaw si safara ragal ragaluk yàlla safara ragaluk yàlla bi xata bi zuhdi fekke nag matt yi mattu dëddu lu dul yàlla la fekke yàlla rek moo la yitteel mu ne bu boobaa tan tudd la ko sarbatan dana am su ñoree dana nekk benn benn benn jus boo xam ne fashrabhaa min haysu laa yaraa

lu jafe la gis ngeen sax gaa yaa ngi taxaw dañu ne nañu gaaw moo tax dañuy profité rek syndicat yu gàtt yi wax ne insha allahu taala ñoo ngi beesalaat suñu kóllëre ci kanamu Cheikh Ahmada Tidiane yi moom koy wax jógee nañ waaye jox nañ tamit suñuy bakkan def nañ la aussi la suñu digganteeg suñu borom doy nañ ci zaari doy nañ ci baati dama mhm. doon yóbbu góor yàlla yi ñuy yëg yóbbu ñu ko jël ak iltimaas yóbbuñu foofu ñoom lay ñaan nga sotti ci ñun barke nga sotti ci ñun xabul mu law ba si suñuy jaboot ba bés pencum yàlla ñoom lay ñaan ci wàllu yàlla nga wàllul ni te dootul ñee suñ morom ndax doy nañu ci zahir doy nañu ci baatin ñoom lay ñaan suñ yut yi yutu laazim ak wasifa yi ak zikru jumat yi nga defal ñu sa sa kanamu borom yaa ngi ci dafa mel ni nekkoon waaye yàlla ci dafa wali yàlla yi fan awliyaa in xaabat bi suumatu al jismi arwaaxu fi lxadari fan awliyaa wali yàlla yi wa in xaabat bi suumatu doonte seen yaram fàddu na an aalamin jismi ci mbindeefu zahir mhm. fan arwaaxu fi lxadari seen ruux yaa ngi teew li ñuy wax ni cheikh an koy dégg kon nag ñoom lay wasiila suñ diggante suñ borom mu nangu ñu suñ mboolem ibaadaat yi nga waraloon ñu képp ku fi indi feebar yàlla wér képp ku soxla yàlla na ko yàlla faj képp koo xam ne dangaa am wàññeeku ci yow seet ci sa barke ak ci sa maqaama ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy sa maam kon waa aaxiru daawaana alhamdulillahi rabbil alamin